ngal la boo tiimee xar bi bul fees sa bopp. bu ma fees sa yedd rek. a ngal la boo tiimee xar bi bul fees police bay. waaw lu la tam dafa ay doom. Hmm? boo mënta gis teelal wax ñu disqualifié la. barke sëñ Bamba dama ko similé. <laughs> mooy fees ba dem fees fees. eh bul fees di di la bu booy fees. boo xam ne bu neex nga dem nii. ma mun a fees. yow tey kaay wax la kaay wax la Ousseyn man damaa bëgg nga gagné. may gagné sax. yaakaar moo ko ci police mbay de. mais man ci yow laa ko yaakaar parce que Sénégal dama bëgg ñu xam ni yow mii. gentleman nga parce que fees dafa bokk ci base yi xam nga ay araw ay fees ay mayonnaise ay base la yooyu waaw mën a fees de Sénégal yi bu mun fees ñu bëri nañ jëy yàpp jaxase ko ak bi der daa war a set bu der bi setee nga teg nag da ngay topp sa tere la da ngay topp topp ànd ak moom topp ànd ak ah, boo pare boo pare boo pare ba nga soog a dindi ko ne dañuy concurrent tamit. waaw ba pare ñu lay def ay affaire ñii tamit say concurrent rek ñetti booy yi. ñetti booy yi dañ pare de te dañ tàmm gañ. ñoo ngi sa kaw Ousseyn doo doo ko def. ñetti booy yi dañ tàmm gañ Fallou Mbacke dama ay nit tuur la ñu xëccul moom ay nit tuur la ñu ngi solo di simeeku ci soo ba tey te dugg na foofu la dafa méchant. ñu toll ci wax bu sumeekul du baax. Mbacke Alaaji Fallou Mbacke tey laay fecc. xam nga tey laay fecc du garaaw fi mu ma yow. ma yéen. mën a mën a ci réew mi ku ne mën a te olof Njaay dafa ni boo mënee rek mën nga jaru ngay extrait maanaam di am ay problème àdduna ak yooyu noonu jaru ko boo mënee mën nga noppal ñëpp te kii lépp lu muy waaj a def moo gën lu dafa la wàcce gaay bi su ngoonee bu dee lii laa bëgg a def xamal ni toog na waxtaan ak ci du français ni may waxee nii xelam mi ngi ci mi ngi ci ay cinq cent pour jox ma ko mais mi ngi xalaat am time naka bu la El Hadj Ndiaye amul woon day làkk anglais am time am go. moo gën suñuy am shit. wóoy moo gën suñuy boos. ba xam nga ni kër gi. gaaw ci ñun. dugg loolu ku leen géeme. am jom nangoo liggéey bëgg boppam. boolewul dara ki wax la bokkul mais sa xeetu brodé lan la. ñàkk yéen ku la def nii ku la def nii. Modou Gueye yëre korité bi laa yëre korité bi laa sol nii. kon kon yëre tabaski bi boo ko soxee. waaye nag dama neexul ba neexul waaye damay bisu ngoone wóolu na ki mu àndal. saak la ko jox saak. te waa jàng du ko génn amul surveillance. maa ngi koy xooli ci bët. saak bu sëy saal bu seer la ko jox kees buraki sa kees sa gën kees wuramba pa pin kees buraki sa buraki sa gën buraki kii sa gën li nu am ci énergie ñu ngi koy jox nii ku daanu ko bëgg wala koy crise lii laa am tey jox la mooy ko mooy ko lu tàng li balaa programme bi jeex. ñoo toj. ah parce que yàlla damaa teg xaalis. concours la billahi wallahi dara du génn. dama bëgg rek xam nga yow da nga ñu yéene yow da nga ñu bëgg. tey jii tubaarikàlla macha allah mënoon nañoo xeex. moo tax dañuy jël suñu lépp lu ñu mën a dooleel la bis bu ñu yow yaay xalifa général kulu Jumaan xale yaay seen yaay ah, ndax yaa ñu bëgg yaa jël xale yi nga ah, xamante ne dafa ah, am jom tubaarikàlla tey ñu ñëpp ñoo mànkoo bu ñu la toog si royal ñu la yàq sur la 2STV gis ngeen yéen a ngi en direct. waaw déedéet waay. aywa man complexe naa ko waaye waaye Fatou yaa propre nag ma nii suba bi nii nii rek dëgg la sax nekk kontaan naa de d' accord nañu waaye huit personnes xoolal ziiri bi ziiri bu réew boo xam ne maa ngi réew boo. Tortora. bés ko ci dama leen yëngu parce que dara du ko neex. Baara. ay laxas. Eh. yow. dañ la laaj. waaw waaw

maa ngi nii man yaa ngi fay maa ngi waaw dëgg la nag fii ngelaw la de. waaw mais bii sañ sa gàll. waaw waaw lii sama yëf la. waaw lii sama yëf. sañ sa gàll. yow sañ yi dëkk. waaw yi ma yëg naa yi ci su ngeen bëggoon yëg. waaw fii dafa xew de. donc day bëgg nga rek. coow fàttali. lan nga mën a. mbiru ay nekk ci ay kër yi. c'est la famille. sa xale koy def. su nekk nii suñu suñu c'est la bongo man ñu ambiance zalone zone def lu ñu saako. waaw waaw ma laal sama petit kii nii firi yaa ma gën a xam. waaye ba si kanam. waaw. ma sol sama hôtesse non damay sol sama dama koy suul. mais lan ngay toog looy toog. en daal en daal. sotti xam. wuy ma est ko bokkal est-ce que nga génn ci dina yoon. may kuy génn. yaa ñun dama leen di rey. zilli ma nam bi dañ koy yóbbu Malick ah, nam bi la ñuy yóbbu Malick ah, dëkkandoo daa ko waaw nawle. faj sa mbaam bi bi sama xar bi may fees bu ma la ko joxee na ko togg normal bugguma ñu jël ndaa dañoo war a yóbbu ndam li Malika bi bi non Malika Malika Malika na lay gëna wa na ngay ko boo boo di gérer donc jàpp suñu njàmbur jàpp suñu stand. waaw dëgg la waaw ñu ngi nii toog am ngeen mën a def wala ngeen toog yéen. suñu ci. aywa fii di neex tey nag. dinaa ko yem bu mu la pointé rek ñu ngi wax far. am na fi. def bu la bu baax dégg nga de ay afro def bu la goxal bu la goxal Mais non, non, pour un bien, mais qu'est-ce que t'es, qu'est-ce que t'es sourire là dama woote hygiène de yaa ne ma dindi ko. <laughs> ah hygiène daaw bi ma leen tey. dama woote hygiène. fii laa ci maas nekkoon. ba pare sama plat bi xam nga bi daaw génn sama plat tey masque bonnet gant masque bonnet gant. masque bonnet gant. dëgg la sama plat tey bii. ah dindi sa masque la sama plat tey bii. Ah. masque bonnet gant. le plat tey eh, il s'appelle masque bonnet gant. ah. xale jasit yi fan lañ ko rey. jasit yi ñu ngi ñëw. waaye soo xalee dañuy xaar ñu rendi jasiti rek ñu commencé tey. waa léegi yow lan nga war a togg tey. crocodile. ba tey nangoo ñu wax looy togg. crocodile. ay asalaamaaleykum reex nga. crocodile moo gën a raar xam nga man Bijou Ngoné man dama bëgg luy dund ci géej yàq mënuma teggi luy géej man dañ man dama dama bëgg luy dund ci géej. stand bi nag wax dëgg yàlla stand bi. rakku Ndeye Ndege yi tàmmee nañ ko. daaw aji maas la woon sama rakku yaay la. kii it sama rakku yaay la. yaa ngi dégg kii papa la bokk ak sama yaay kii yaay la bokk ak sama yaay donc stand bi moom sama stand famille lay nekk chaque fois. ndeysaan oh hasard amul. yàlla boo jëlee ci saa. yàlla naa jël fee. yàlla naa jël fee. yàlla naa jël fee. yàlla naa jël fee. ñetteel jox boppam. nañ dem ci feeskat yi feeskat yi bu ko baax membre du jury yi def benn tour membre du jury yi def benn tour dama sey dama

mais xam nga amul amul xar bu jigéen la. tànk la am nga dàmm. Oudé. doo doomu tànk yi. waaw comme commencé bi. Oudé doo commandé ko. Oudé. Oudé. Oudé. mais attends fee ñetti ñett la yéen lu tax mu doon ñaar. Maodo yaa ngi yóbbu xëy yaa ngi yóbbu. maa ngi yóbbu yàpp bi xam yàpp bi rek yaa ngi koy yóbbu Saalum tey. waaw yow nii nga la. kenn buddi bi kenn buddi. non non non kenn buddi benn rek. non ah. xam nga daa amul de. waaw waaw waaw dàgg la dàgg la dàgg la. daa amul. waaw dàgg la dàgg la waaw. loolu la ñu am. dégg nga perso la lu la wax léegi la bu ëmbee jëlal livre bi jël nga teg ko fële nga yeggale sa dépensage dégg nga li mu la wax. merci. parce que Ousseynou ko boo ja boo jaawalee poxtaan rek yàq ba dab. fees ba feesaale bopp bi na leer. Eh, kenn mënut a fees bopp bi kenn mënu koo fees. fees wekk ba feesaale mboq bi. waaw waaw. yaa ngi yóbbu yàpp xar bi rek ah. ñaar ñi de ban ci yàlla dinañ ko jaay. xam nga yàq-yàq la. du yàq loolu yàq lépp lépp nga ko def. dagal dagal ko daal. non neexul ba neexul mais yéen mënoo leen de. Udah, udah, udah, udah, udah, mais mais mais mais Pawlish Pawlish Ouzin xoolal xoolal xoolal Ouzin fi mu. merci très bien loolu laa sax. <laughs> ñun mën nañu ñàkk. moom dama ci gars yi bañ bañ bañ. waaw du tere ñu filmé leen rek wax leen ñu filmé leen. ca daf maa toog ci lépp amu mën. ñee leen ñee ñee. waaw. ñax laay jëlee xaw ma. lu jëlee wax. waaw dafay lenn bu doon dafay lenn de. booy bi dañuy baax. xaaral ki seexul. waaw lépp ak yow ñun dañoo tardé. gars yi dañuy war. kaay kaay kii la. ay dix personnes la. bu fekk xar mi taxaw.

mais yi nag ñu ngi pare. ngeen di félicité yow ak suñu borom yàlla te bu dikk gën a neex gën a baax. ñu ngi félicité 2STV l'ensemble. di si jiital El Hadj Ndiaye nga xam ni mooy membre fondateur bi ak soxnaam Marème Ndiaye. ak Abdoul ñoom. mais nag ñuy félicité. suñu doom suñu soppe suñu xarit muy Bijou Ngoné Euh, ci lii nga xam ne moom la def tey ñu di ko communion tey mu woo ay feeskat ñu indi ay xar yu bari woo ay toggkat ñuy concours loolu ñu ngi ci am sant biisu di ko félicité di ko ndokkeel di ñaan yàlla sunu borom yàlla na ko def ak yu bari parce que wax naa leen léegi ni tànn ceeb sax aar la téycumwaar aar la xambataal aar la yëkkati sa kubéeru cin aar la parce que la nga gis léeg-léeg jigéen bu téye ci lafu sëriñ di ko ubbee ci génn na ca aar ba te ngeen seen ma dem te ñëw c'est ça la réalité looy def rek ma déy léegi ni ma na gàtt ndax aar bi waaw mais na gàtt na mat waaw nga xool cin beeg ndab yeeg yooyu yooyu yëpp dafa am solo cin da laa jëkk a xool rek waa góor la. Fanta Fanta moom mooy ñëw. Fanta yaay ñëw ubbi sa cin aussi. Mansour sensei. dama dagal ji de. jaal bu ma jaal jaal boo boo jaal ma ci xayri boo jëfee mu mën. Fanta Fanta bu Medina lan la ñuy def. waaw Medina TV la. waaw waaw li ngeen ordonné rek lan la. ci loolee. yaa ngi si yow. li ngeen li ngeen ordonné tey lan la. Fatou Mbaye waay nuyoo rek. ah dañuy nuyoo nii. li ngeen di nuyu. li ngeen di nuyu ala dama génn ko. kon ni ngay tànn Fatou. yaa ngi koy seet. donc. alhamdulilah. waaw mais Moussa. Saliou. musaa tey loolu tey tey loola nar. waaw ñëw rek jàppale madame. waaw ñëw feesal ko xar bi. war dugg si waañ bi ñu yëngal fii. pare jël ndam yóbbu ko Medina. mooy loolu looloo war. loolu moo ñu ñor. looloo war nag Medina kese. mais naka feesu dégg naa gars yi gars yi naa ñoom Boucher mooy ñu leen dara de. dañoo fay ñu feesal leen ñoom Boucher dañoo indi ñu leen feesal. ñu ñëw dëggal suñu bopp feesal suñu bopp. lépp mën la fekk ba. waaw. cum. gars kañ moom. aar ma mi leen si waa maintenant waaye meen waay waaye beneen waay mais beneen beneen dindal masque bi waaye gaa xamee la. bàyyi ma rek ma takk sama dindal masque bi dindal masque bi. bàyyi ma takk sama masque rek. waaw maintenant yëngu. mais maag sama papa Xaadim ñu ñoo yore jeunes yi ñu ñooy àttee. te dañoo bëgg a àtte dëgg ñu bëgg leen a bàyyi nag suñu papa bu expliqué leen ñu xam kan la ndax ah waaw ay jëwal ñu ko comme ñoom nag lay wasala ay ca papa waaw jërëjëf jëf ñu ngi leen di nuyu waa Tek 5 baal ma baal ma baal ma sa yow dara sama xarit sa kër ah sën sëy yow sama xarit nga ak sama grand sën sëy ay ca papa ñu ngi leen di ndokkeel leen ñaanal yàlla suñu borom anniversaire bi feerete yaa ngi ko fekk téeméeri at bii su nag li mu def fekk cinquante ans histoire dina ko bind ndax ñu desistir yi ba muy feetee ci atum 2004 woowoon na ay feeskat woowoon na ay toggkat ci façon togg bu nañ war ko togg loolu mooy wane cofeelam ci jigéen ñi nga xam ne ñooy natt boom mu bokk ak ndax fii lii ngeen def ni tey bu jëkk jigéen piir ci ñaar na koy xool togg mbaa fóot togg gi nag du yàq booba matt am matt ma nam ko yemalee roof ko ci taal bi cin la nañ ko ubbee ak wos ya tànki cin la nam ko sampee bu jëmee ci cin li di dox bu egsee na muy ubbee cin la lan la koy ubbee su tàngee ndax bu jëkk daa nga gis jigéen fokk musóoram ubbi ci cin ñi sant mbay nag léeg-léeg daal ci jigéen bu jël lafu séram ubbee waaye am na ñoo xam ni tayu gi ñu tayawoon cin la moom la tàllal lem ubbeeku cin la ndax dañoo delloo mbatt ci ndaar kon ñu ngi leen di ndokkeel di leen félicité comme li Mansour wax léegi muy lu ñu biisu sant mooy ñun ñooy siri bi incha allah danañu ko àtt ci dëgg danañu ko àtt ci première gañ. léegi noo wax ci dressé bi léegi. waaw dressé bi. ngir feeñ na ci. foofu laa yem waaw pareegu ma dama dama teg nii rek def samay petit décoration. waaw teg ndax maa ngi nii dama war a ah. teg sama ndawal. da ngeen ñëw daal fekk ma def petit décoration. leneen yëpp a ngi ci ginnaaw ceeb def. misu cin. am sorry. maaleykum salaam. Khalil. looloo am. sama rakk ji nga fekk. non ma gisee nga nuyu ma. Ah, ah, nuyu boobu neexuma. yow boobu maa ngi jéggalu mbooloo mi oh. tey dañu ñëw. waaw ànd ak Youssou Ndour mu def lu jafe ci Sénégal. waaw bu dee xam na ni moom maanaam li sabab la. ku bëgg lu baax di ko bëgg. ndax osé na aisé na ba pare pesé na te loolu mooy nit. yaa ilaha illallah osé aisé. Ah. ba pare ngeen expliqué de. def na moom ñu def lu ko saf. ñu ñëw nag seet si nag ki nga xam ni. waaw moom suñu rakk la. am dégg lool. baax lool yàq lool. maa ngi soog wax li nag ci yëpp. mais waxuma ko pour far mais li nekk ci yow rek laa la wax. ànd ak suñu bàyyi nag. jël lépp teg ko ci loxoom. papa kii mooy asuloo. moo mu invité ay nitam def ba mu baax. ba bëgg nga laaj ko li mu def lu mu doon. waaw jërëjëf Astou ñu ngi leen di ndokkee di leen félicité. di leen ñaanal yàlla suñu borom anniversaire bi nga xam ni moom la 2STV di organisé tey. Euh, ñu di ci ndokkeel El Hadj Ndiaye di ndokkeel Marème Ndiaye ak mboolem ku nekk 2STV. ak jigéen. mais nag di rendre hommage solennellement Bijou Ngoné bi nga xam ni. waaw moom la yàlla baaxee ñu organisé ko lii. mu inspiré wu. te inspiration biisu toujours luy jëmale jigéen kanam la luy boole ak bokk ndax lii mu def tey am nañu daal déggante danañ gisante tey xamante jàppante bu ëllëgee mu doon njariñ euh, loolu moo tax ñu di ko ndokkeel di ko félicité ci li mu def tey léegi nag ma bëggoon a xam yéen ñi nga xam ni dañ leen dàkkantal ci lawbe ah, muy astu muy astu lawbe uh-huh. euh, nan nga préparé sa waañ tey eh, waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. waaw euh, papa sama waañ. ni ma koy préparé. Euh, avant tout sax dama ñëw woote hygiène. jël plat bi. tuddee ko bonnet gant ak masque. voilà dara di xew loolu laa ko tuddee waaw. parce que hygiène dafa baax. hygiène dafa baax ndax euh, soo defee bopp neen di togg. saxaar bi waaw saxaar bi mooy waral léegi léegi léegi léegi léegi bëri ay Yeah. yaa yaa muumin mbala yaa yaa yaa yaa muumin yaa yaa tari tari guddi tari tari guddi xamu saxar dañ ko césarienne Paulis faw nga góorgóorlu ndax ndax buur bi mënoo ko gañe xar boobu leen ma jox lan ma jox ma fesaw ndax doom ji doom ji moo tax du ma ko fesaw dama ko ñëwatal ci biiru yaayam dama ko ñëwatal ci biiru yaayam yow xaar sama pepe ëmb ma pepp lool xar mu ëmb ëmb nu ma mu yegg doog ko def la muy def maîtriser na am na ma nga kër ga mu denc lu wow comme mais sa ñun ni retard kii kan la kii mooy kan daa ñaaw daa ñaaw ñaaw bi xoolal dama eh. ku wax dafa ñaaw mosoo gis ku rafet mais da ngay ngëm ngëwaat ngëwaat non du ay caaxaan dama ne lii konkorog la fere koy toj lu wow kong la kii du jàmb ci benn paan muy explosé lu wow kong bi na gars yi fair play dëgg la voilà Ah, kii de dafa kii doomu waali la waali bu nekk sa king of sa ay doomam nekk sa konkoro wala ñu nekk ay sa xaal maa sa soppe ay kaana yu mag la ñuy nekk waali démb wane sa doom yi nee na léegi nekk ay bàngeen de non nee na yàqu nañ mais tamit nag xam nga xale yu juddee Europe ak yu juddee fii du benn gis nga tamit nag vaccin yi danoo baax boo xoolee ñu man boo yéex sax balaa ngay xont sax ñu jugal sa bopp mu ne la bàyyi bu mu jóg waaw non xam naa li mu bëggoon ah. tolloole bi la bëggoon tolloole bi <laughs> waaye nag kii nag dañ ko xàmmee ràññee ko xam ne diw yi bëri na coow diw bëri na waaye bii caméra ngay taxawal bu ñu doon de dégg la de non non yow yaa woo ba caméra ñëw ñu demee bi bis kaay la ëppo ni pour la gëroon loo réew ah, ah, oui ma dama xam ne maa ngi yàq rek ngay waaw mais c'est normal parce que nag mu munoo togg sombi muy xëy nga fooy daa ñor da ñorul de sa sa coppite bi waxu sa sombi lay daanu nga perte mu ñàkk waa tu as ko baax a baax ci bële bees merci dama bëgg a gagné man ci la añee. waaw ngeen a mën sax suñu. ngeen a mën formal loo xam. saucisson moo ànd. waaw am na saucisson bu weex la yow ana ki ma jëndali yooyu. yaa ngi ma ko téléphone. dégg nga maa wóor fu ma ñu. ña ña ma ba xam ci sab la suukar balaa ñoo ko ba pare alhamdulilah. ñam naa ko. ñam naa ko. somni bibis njaay somni la togg somni bibis njaay day dëkkal cosaan rendu hommage man sombi cin sombi ñeenti meew moo ma jaaxal cin après bi bi jëndee jëndee fi ñaari ñaari pege xool man loolu ma jaaxal. moo tax bi say suba su buñ koy dugal. waaw man soo bëggee génne soo leen ànd mu tànn yooyu yëpp ñu gën a tudd. gisaguma lu ma tere dem. li ma yëg xajul ci ndox lu jee yàq na man doo ma. li des yàlla na yàlla may ndam. parce que nag ñun képp lépp luy ñun ay dof lañ te bëggul kenn raw na te képp koy dof dama war a ànd ak dof yi pour ñaanal ko ni ma ñaanal yal na leen somb bi te yow da ngay rendre hommage somb bi li nga rendre hommage am solo am na ñoo xam ne ñi ngi añee yàpp ñi añee somb bi li nga rendre yaa nga rendre hommage somb bi yal na la somb bi taxaw yal na la yàlla somb bi taxaw nga gagné parce que mérite ko nag nga gagné ci ni somb bi saako suukar ñeenti meew yal na la ci yàlla tax ba am jàmm yéen daal ma amoon na la sombi taxaw yal yàlla te bu sombi bi te ma ma wax ko fépp ak Sénégal yi bu sombi bi neexee man takk la jabar Pawlish Pawlish ñaareel xam nga li man la toggal man. barke Serigne Saali Mbacke kii da ngaa toggal ñu sonn faqiir ah. bari bor sonn am problème nga woote sombi démb ku ne xam na ne démb sombi cee bokk ni nga ko toggee moo neex ñu ci boole ci nu sombi ñeenti ñëw saako suuf ba ci ñeent koy sax yaa ko gis ak tëmbal na soosi soxla si sëñ bi yaa ngi ñëw nii da nga pare ah bis pare nga sëñ bi bis bis waaw ah. bilis bilis bilis may ñu acapella ci bi ñu tëj ci sombi bi ñu tëj. ma acapella leen ci sombi. waaw loo leen bëgg ambiance wala lan. ambiance baax na loo jël def togg sombi te tudd ma. munul sombi moo tax ma togg sombi damay rendu hommage ndax am na ñi nga xamante ni moom lañ doon ndekkee di ko añee di ko réere am na ñi nga xamante ne seen démb suñ ko fàttali ko sombi bokk na ci moo tax ma togg ko dëkkal coosaa ma ne sumbi bi bis bu paaxe dina neex dina yëngoo dina fatu taraj mais tamit di ngeen ko lekk di takkam ci ku naan na an na an na jox ma benn palaat def ci meew. ma wuy ma am na kudd. maa lay mbaar yi meew lu neex nee naa la sombi filiñ laa toog. jox ma benn palaat rek jox ma meew. Ah, léegi ma yàq. ana damaa yaatu ñu tere ba diwlin yow yaa def sombi yow laa am la jox ma som bi sembare somu filing bu amul fenn paaj ah. xoolal daa am ñu ma yónni pour ñu ma ñu jëndal ma lii ñu jëndal ma fromage gisuma ci fromage gruyère de fromage boobu noonu ci bitig yi tamay jël cent francs paquet laa ko ci woon ñaari paquet ak lan léegi tamit dama ciy def ragin. Eh, eh, meew bi matul dama ko dama kaa yu. non def ci carotte râpée de eh, ma ciy def coco râpé. waaw ah, kay tuuti sumb filim toj sa yow yi ma kaas bi yow koy rendre boo paree. ma ne xam-xam ma ci fulla ak fayda ak personnalité tey laa am chance su ak yow. waaw doo leen may doo leen may tuuti doo leen may tuuti nii laa ku ci nekk ci àdduna nii mu ma dégloo nii yàlla dogal na noonu nga may dégloo. xam nga lu dama dem anniversaire u Pagaay Mbay xale bi ma àndaloon ne ma pourtant fii mooy bitiku Maam Njaay Savon billaahi wallaahi tallaahi ma ne xale yi du ma dem ñu ne ma lu tax ma ne leen parce que joxuma ko rendez-vous waxuma ko du ma xëy